Euh, salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu. maaleykum salaam ñu ngi nuyu waa Dakar midi ak waa Wasaare. di nuyu waaw Abu sama xarit sama doom de. dëgg la siyaar wér représenté ci lambu taala ah yàgg nga ci lambu def nga ci lu ne sa diggante ak Balla yëpp xam nañ ko tey ci nga xamante ngeen ñëw ci combat bi nga xamante ne mooy combat Balla Gaye Bombardier keroog ngeen yóbbee seen mbër ngeen gis Bombardier gis Bombardier xam li ngeen indi Balla Gaye keroog ngeen yëg. waaw xanaa yàlla rek. di nuyu Père Balla di ñaan yàlla na ko yaara xaare àjjana di nuyu sam papa di nuyu mboolem ñi seen waajur jiitu di wax ni keroog làmb rek manqué na Balla Gaye Père Balla bu baax a baax a baax ndax benn buñ dugg see ci làmb ji rek damaa njëkk xool ci mikaay bi sorko sorko bi bëri na xale bu ne téene bu teel ñu téye saako ci seen nangam te lool bu fa nekkoon du ko nangu mbukk ci làmb man làmb Balla Gaye bu nekk damay assister mais ku ci nekk ak na muy jàppale mbër mi ñi dañuy dagg biyee dem toog ñii xool li yàqal mbër mi ñii ànd ak mbër mi ñi toog seen kër ñaanal mais làmb gis naa domaine bi ni ñu ñëwee ak bañ daan ñëwee bokkul parce que keroog sorq sorq bi daal bëri na ci cimikaay bi benn cimikaay Balla Gaye de nombre bi ma fa gis doy na waar te jamono dafa toll foo xamante ni gémmañ bu waxul dëgg rek wax leneen Père Balla bu ñëwee te naan benn ñaar ñett dugg leen ñeneen ñi ci bokkul yëg leen ci kaw la lay wax organiser cimikaay ba ñëpp ne teg ku ci nekk mën a waajal xam ne lii moo la tax a jóg nga nekk ci mais làmb daal bi ma ci jëkkee abu mooy da nga koy waajee ca kër ga làmb li koy daan day jógee ci kër ga ñëw ci stade bi waaw parce que organisation bëgg naa ko ci làmb bëgguma tey ba ci biir làmb ji rek taala wàcc ci tribune bi ànd ak Balla Gaye jaar fee kee jaar fee soroxo bëgguma ko ci ci mikaay damay bëgg lépp organiser wu ku ci nekk rek sa domaine nga dox ci biir làmb ji parce que man mën naa jàppale Balla Gaye 2 te du ma wàcc mukk ci suuf waaw di wax ni nag su beneen yoonee gën a xoolaat entourage foofu laay ubbee man entourage bi daal baax na mais nag sorox sorox bi ko organiser rek waaw nañ ko organiser bu ñu ko organiser gis naa ne dina gën a baax daal. kenn ci ay nit ñoo xam ne sax duñu ay nit làmb keroog nekk ci cumukaay Balla Gaye ñoom ñaaxal nañu ñeneen ñeneen tey topp ci Balla Gaye waaw man duma sawar di tur ndax man daanaka du man ak ñoom. waaye nag gis naa ni Balla Gaye 2 pour nga dugg ko daa gën a yomb pour nga génn ci moom. Hmm. waaw man gis naa loolu parce que nit ñëpp yemuñu man li may wax nii am nañu ma ci seede tey ku ci mel ni Lamine Gola seen coach maa koy ñaanal moom mi ngi jàppale xale moom xam na li may wax père Babacar Mbaye xaritu père Balla xam na li may wax ak mboolem axlu làmb ñi nga xamante nitu démb lañ man xam nañu li li ma ñoom démb la ba léegi maag Balla Gaye ñu ngi nekk tam musul nekk nii la tudd ndax utuma ko ci mais li ma ñor ci moom mooy buy bëre ji yàlla na ko yàlla may ndam mais saa Balla Gaye bu mu musaan bëri ma tëj sama néeg bu daanee damay yuux ñen naan lu muy yuux ndax xamuñu Balla Gaye moom maasa bees maa ko wax kon xam naa ci moom lu bëri mais damay wax ci moom tuuti ndax du ma faral di wax ci làmb waaw waaye nag di wax ni na gën a defaraat parce que ku dul mbër ak mbër mënuñoo fréquenté Père Balla da ka daan wax kudul mbër mën na laa jàppale waaye nag mbër dëgg dëgg day ànd ak mbër mbër day ànd ak mbër ànd ak mbër nag waxin la nekkul da ngay fréquenté mais tey jii nii su ma ñëwee ne abu dama lay jàppale te duma journaliste yi daanaka damay wax lu ma xamul rek wala ma conseillé li nga xamante ni kii mais pour ma jàppale abu li gën a yomb damay liggéey a yaatal lu bëree bëree bëri bëri bëri waaw mais bu fekkente ni yow mbër nga tey boo ma woowee ne ma nii ak nii làmb ji lii ak lii ak lii ak lii day gën a yombal sama laam mais nag bu fekkente ni yëngu ma ci mbër mën naa laa jox àdduna ak la ca biir mais day am loo xamante ni nag day des day des. gàllankoor su si Balla Gaye ba ñu roofoo ñoom ñaar seen premier contact bi ñu arbi atte leen ñu daanoon njaxa jaay ci ginnaaw saaki arbi waat leen am na loolu lañ man instant yooyu noonu su ma la waxee dëgg rek ba ñu ma laa fen damaa ñibbi man ndax li tax ma ñibbi man xam naa Balla Gaye de baax Balla Gaye de dañoo toog muy muy mbapat Assane Diouf ñu ñëw dimanche ba fekk samedi ba daa ñëw bëri premier tour mu daan. waaw bi mu daanee dimanche ba mu ñëw toog ci suba gi suñu garage Paka Paye Balla fii ci stade bi. ñi may déglu xam nañ li may wax. mu ñëw ñun mu ne damay jël suba télé bi ak vidéo bi yóbbul ko sama yaay Thiès. monsieur doom père Balla ma nga Espagne moom mi ngi may dégg xam na li may baax li may wax monsieur ne ko tafatina fa nekk mu ne ma koy tafatin mu ne ko su kàttanu yàlla bu ngoonee dinaa leen indi télé bi ak vidéo bi te bu lëndee ma dem yóbbul ko sama yaay. te loolu ba mu koy wax moment a mu tolloon la muy wax lu mu gëm la te ñun ñu koy seetaan xam nañ lu mu gëm la parce que ñun dañ koy seetaan Balla Gaye daan na takk ngeemu 17 heures ba 19 heures et demi te kenn du ko daan école de lutte Balla Gaye école 16. ñu koy seetaan muy bëri ci catégorie bu mag bi di dem ba ci topp di dem ba mu mujj bi ba dem ci ñoom Bamba mi nga xamante ni ay xale lañ. manga mi xam na la may wax. kon ñun xam nañ Balla Gaye parce que lool noonu man gis naa ne nag loolu noonu bu fekkente ni dañuy bañ a jayante rek àdduna moom lu mu métti métti dëgg mooy njëkk mooy mujj. Mm-hmm. contact dafa am solo ci mbër parce que man duma dem ba làmb ja nekk mbër di physique wala may flexionné wala may sio wala may masse kanaara damay dem ba làmb ja takk ngemb contact contact moom gis naa ni moom mooy dëgg dëgg dëgg dëgg doolay mbër moom contact ta feeñ na ci combat bi dëgg la nag nee nañ def nañ ko mais man mënuma cee sori ndax fekk assisté wu ma woon réglage lu ma wax ci bala Gaye 2 ci combat bi damay wax lu ma xamul parce que benn TikTok laa koy gis TikTok laa koy gis ba jouru làmb ja ma gis loolu mais Balla Gaye dana am combat dama koy seetaan ba su ma xam nañ li may wax dañ taala lan la Balla Gaye indi man am na ci ñu xamante ni sax samay xarit lañ ko ci mel ma dawas ak Ablaye Dieng dañ ma daan wax naan ma yow boo demul istat ñun dañuy jàpp ne Balla Gaye day daanu ñoom xam nañ li may wax baax ñoom maa ngaa gars yi ma daan wax yow combat Balla Gaye yow la xamee bu victoire naree am bu supporter Balla Gaye li muy bëri bëri bëri mel na man mii la ci njëkk xam maanaam te loolu yàlla moo ko def rek te li ko waral dama bokkoon ak ñoom fi ñuy liggéeyee muy pàkk Père Balla laa nekkoon seqanteeg ñoom jàmm loolu moo waraloon lool mais ñuy dem di ko seetaan di ko assister muy wane nag jom ak garmi ak njàmbaar lu ko yàlla may lii nag loolu bokk na ci parce que daan wane jom wane fula wane fit wane fayda parce que mbabar sax bu fu ma saan dem bu ñu ne ko bind lese bind père Balla li muy doon doon mag yàlla na ko yàlla yërëm daan toog nii daan toog ci pooje bay nelaw su waree bëre ji ñu ñu fëgg-fëgg ko ne ko Omar mu ne ko naa mu ne ko jugal bëre ji mu jug bëre daan pare paree noonu lay jëlee lañ fa teg mu indiwaat par exemple boole kaag monsieur Ndour doomam ma nga Espagne moom léegi léegi Lamine Faye la fi yàlla teg mais monsieur moo nekkoon course école de lutte Balla Gaye yi ma lay wax waaw kon kon kon kon demee na noonu école bi nag faaw boo yi gën a góorgóorluwaat parce que Balla Gaye li def nii la de te Balla Gaye nag ndam lu ne am na ko fi mais nag leçon la yu wane fu mu toll nii xale yi ñu jàng ci parce que instant yi nii abu buñ jugoon dem nga dem école de lutte Balla Gaye ñaari nit nga fay gis te loolu du yoon écrit bu toll nii école de lutte Balla Gaye war nañoo mën di assister entraînement yi lamin def na lu mu mën mbës adjoint def na lu mu mën mais nag li koy mottali nag mooy mbëri ñooy xam ne lii seen yëf la parce que wax ji wax ji wax ji wax ji Balla Gaye da daan wax ku am nag sa kër bàyyi nga koy yeewu moom ba mu amagul dara jàpp na ni moom li mu doon dina ko doon ndax danaan wax ko am nag sa kër bàyyi nga koy yeew moom Balla Gaye dégg moo tax gëm-gëmam ak jomam ak fulla ak faydaam moo ko may lii mu am di wax nag mbër yi ndaw yi nañ gën a góorgóorwaat xam ne ak bëre lu mu la mayul ci làmb rek leneen du la ko may ñoom na man nag cent pour cent géejawaay dama koy dégg nii rek mais man des naa ci ànd quoi ah. ndax problème bi mooy tey mënu ma ne cent pour cent la ba pare tey bu làmb amee mënoo faa gis ñaari mbër yoo xamante ni ñoom géejawaay lañ bokk kon loolu bu ñu nee 100 pour cent la pour man des na quoi mais nag xëy na ñoom ñoo xam lu leen teere di ñëw mais bëgg naa ne ñuy ñuy assister daal maanaam yenn bis parce que abu nit ku nekk bisam lam am nit ku ko xeebal xeebal bisam rek daanaka moo boo taxawee ne nitam nga mën naa wéet am na mu xalaatee quoi di wax nag waxee wu ma comme Balla Gaye dama wax en tant que amateur làmb biir géejawaay gépp di wax en tant que premier supporter maa bees Balla Gaye numéro 2. di wax nag en tant que fan si club bu école de lutte Balla Gaye comme noonu man maanaam <laughs> membre laa école Balla Gaye benn ñaar géejawaay moo ma ñor man ku ma xam-xam ma géejawaay ñett. maanaam damay wax comme làmb nu muy rek ci biir géejawaay tamit quoi parce que man tak laaj waaye yaa ma laaj. ki nga xamante ne fils de Balla yéen ko wax ci média mais yaa ma wax loo daal tax nga wax la boobu làmb ji dem na ba boobu maa ngoon ci kaw tribune ba lay wax rek mais dem gis naa ba timika bi débordé ma daw wàcc nga ne ma taala la moo tax nga ñëw ma ne faaw ma ñëw parce que Baye Balla nekkut fi te ñun Baye Balla def na lu bëri ci ñun donc ay xale lañ mais am na mbër mu ndaw mm. wala écurie ndaw ñu ma lan moo waral lool ma ne ko parce dem ba fils di bëri toll ni général bu Malika def li def ci làmb mu dem ba war a bëri moom arbitre war a sifflé yéen waa bi di sàññanteeg waa tribune bi kon yéen a ngi bëgg a doon cuune ñu ma lu tax nga wax lool ma ne ko dama koo xam ñu ngi yàq seen làmb te yëgoo leen ko mm. fils bi si tay bii lu mënti xew moom yàlla da jox ndam li ñun ñu xam ne yàlla da jox ndam ba yëgal ko suñ bopp moo tax sama xarit bi ma àndal dama ne ko Pape Seck ne ma ah ma la a doo nit ma ne ko ah li ma gis rek laa la wax te bañ demee ba stade dana ma sawaaji li nga ma waxoon ma xam ni kon ñun maanaam làmb nekkatuñ ci gan nag amaana duñu duñu wax ci làmb ci làmb mais abu boo ñu dékkee micro dinañ wax mais buñ ko mënul duñ ko jéem waaw di wax ne nag ñoom fils nañ góorgóorlu ba ci caat daaw dafaal ba ci démb daano na te bi mu daanoo dégg ci coow li lu nekk boo yaa ngi koy wax mais moom xale la moom dafa toll ci war a rampe moom Balla Gaye 2 ak Lac 2 ak ak ñoom ñëpp seeni mag lañ ñoom xale yi nañ teg bët ñooñu fu ñu nekk jéem a góorgóorlu ci loolu mais ba ñu leen utal ay clan naan kii jaar nii kii jaar nii ñoom ay champion lañu école de lutte Balla leen lañ xamee woon dañ daan wax naan borom école de lutte Balla Gaye maa tax mu jàpp la boo gisee Balla Gaye ba muy bëri Bombardier sax feeñ na ci làmb ji ba léegi nii Bombardier bu ko appelé bu ko Balla Gaye appelé góos day daw bu day bañ Balla Gaye jàpp loxo góosam dugg quoi waaw loolu la ko xañ ba léegi loxo góos boobu Balla Gaye biesee di wëri ngeembu Bombardier ji day daal di mën a am crochet droite te crochet droite boobu chaque jour man <laughs> damay bëgg ñu koy moytu ci suñu làmb ak Bombardier ji te ñaari làmb tamit ñun ay xale lañ tamit mais nañ xel baax ñoom ñi xam ñoo koy di ci xel baax ñun li gis rek wax waaw ndax crochet droite bi ñaari làmb yëpp gis naa Balla Gaye di ko encaissé waaw loolu coach yi laa koy waxaa rek ku ñu gën cee bàyyi xel waaw comme ay Aziz Ndiaye lañ tamit ñooñu ñu ngi leen di sant tamit ndax lenn nit moom abu mënuma laa may million ba pare di la xañ million muy lan mooy abu mii bu ñëwee ci man du ko jox dërëm ne ko bu mu dem ci manga daka ndax da koy jox dërëm loolu amul fenn Aziz Ndiaye amul lu Balla Gaye di jëriñ Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye mooy jëriñ Balla Gaye de ndax Baye Ndiaye moom mooy xaritu Balla Gaye de Baye Ndiaye mooy xaritu Balla Gaye man man li may xam naa ko ndax ñoom samay mbokk lañ seen yaay xujja Jóob sam dañuy xewle suñu kër mu ñëw di ma laaj samay dërëm ak samay fukki dërëm leen moo ko gënal millions yi dooma mi am moom ko jojob mm-hmm. di ko ñaanal gudd fan ak moom loolu lay wax mais lamb dafa jaxasoo bu mu toll nii tey bu ma duggoon kër googu ñu jàpp ni Balla Gaye nangam nangam te fekk man ñooñu dama faa bokk <laughs> mais li may wax maa nga rek ne ñun moom daanaka waaw mel nañ ni ñu war a mel daal di ñaan daal gudd fan ak wér gi yaram ñoom agis Ndiaye di leen ñaanal nag lu ñu mën ren ñu mën lu ko kii moog Baye Ndiaye kontaan nañ ci moom Thierno Gueye gis nañ ko fa jàpp na ci lamb ji di wax nag staff bi moom aw ma leen lu ma leen di wax lu dul ñu seggaat ah. segg gi mooy lan mooy li nga xamante ni bokku ci rek mu di ñu dindi ko rek ndax ñoom soo xoolee kenn génnul meer démb rek maa ngi benn interview lamin Gollo seen coach di ko wax ah. nee na ñoom ñiy wax ñëpp mbedd mi la rek waaw mais ñoom waxuñu ndax li tax waxuñu ñoom xam nañ ñoom li seen mbër li mu waroon a def def na ko ah. te amaana am na nu doon demee mën na demee neneen làmb ji ku ko xam dëgg-dëgg abu yow xam nga li ma lay wax ci làmb yow moom di la ñaanal gudd fa rek wér rek waaye xam naa lépp làmb ji lii sant yàlla la pour man ndax làmb ji mënoon na demee neneen ndax boo xoolee man premier site bi bi mu amee ñu ay daanu naag daanu wala ak yooyu man xam naa ni Balla Gaye bu daanu woon ñu jox ko victoire ñu jox Bombardier victoire ndax li tax loolu Yékini Yékini champion la ndaanaan la man bala gay mu daw dóor ko Balla Gaye kor ko dóor ko épercute Yékini jébbalu boppam bi mu ne day songo di jeexal bala Gaye rof ko góos ba rek fàq ko mu kaat appi Balla Gaye ree ne arbitre bi daan naa ko arbitre bi ne ko bëreel Balla Gaye bi mu ree Yékini sol ko ba mu jeex ne da koy jéem a plaqué Balla Gaye daa rocc pied droit bi rek day day déséquilibré mu mu waaw mu remplacé ko te boobu daan na ko ñaar te ñun duñu wax xam ah, nga tax du ñu wax xam suñu mbër fii du doon bëri fii ba suba bu la daaneek bu la daanoo yóbbu loolu ñëpp ñoru ko moom li koy ñor mooy xam na ni moom lamb ji li amateur yi nañ lañ bëgg rek ndax carte appui boobu moom gën ko même bu ko daan daan ko ba tëdd ci kawam laa bëgg moo tax Sitor nekkul ku yàq lamb moo tax bi loolu amee bi gars yi waxee leen nag man su keneen arbitré woon mën naa ko sikki saaka mais Sitor Ndour nekkul nitu caaxaan bañ na ko ba bi mu amee problème ci seen bi gars yëpp dañoo taxaw ne carrément mu doon keneen ak keneen mën nañ ko nas me mais kii làkkal la amul caaxaan waaw kon kon arbitre boobu noonu li mu def pour man lool noonu règlement moo ko may rek mu def ko waaw waaw waaw ah, jërëjëf di la wax nag Balla Gaye 2 moom lii preuve loo xamante nii rek daa ma jëli woon lii ah, waaw waaw dama ko jëli woon ndax lu amul seede baaxul waaw lii bi muy bëree kii la nu mu tuddati hmm. Mbaye Diouf ah, hmm. moo ko jël waaw moo ko jël bi muy bëree yëg bi ñu bëree Yékini Yékini Yékini senior final ba kalaaf ba moo ngi nii ko jël man maa ko nekk nii pàkk Baye Balla laa ko kiiwee quoi di la wan ni lii moom it même kon lii du tey abu li nga wax ni <laughs> maa nga xam ne dara a ak gars yi xam rek mais lii ay kon la waaye école de lutte Balla Gaye mi ngi Espagne moom sama xarit maa koy ñaanal moom it yàlla def ko jàmm waaw Youssou Ndour a ngi maa ko njëkk yóbbu lamb 2011 donc ko ñaanal ndam le 16 di ko ñaanal ndam le 16. le 16 lamb ji soxla la di ci woo nag Balla Gaye 2. bëri na ba pare ñu ngi koy woo ci lamb Youssou Ndour bi ndax ñun amuñu lu dul école de Balla Gaye te bàyyi Balla dafay bàyyi sas muy lan Youssou nduur mooy moo ko war a àggale. comme ñaar la woon monsieur Ndour yàlla def na daa assuré mi ngi Espagne di ko ñaanal jàmm mais Youssou nduur moo fi ne. kon nag Balla Gaye 2 Youssou nduur sa Youssou Ndour la bañ na ko bu yaay papaam yaay papaam kon nag jàppale ko le 16 ci wàllu mobilisation bi di ci woo Aziz Ndiaye comme ni mu koy defee Balla Gaye 2 na ko defalee Youssou Ndour ñu gis ko ñun nga xam bu amee rek maanaam ñun dañuy gën a dimbali ñun ñi nga xam ñooñ ngànk mbëri quoi preuve bu amee rek Aziz na ko <laughs> defee noonu waa kii Sa Thiès la moom it ba Gaye 2 na xam ne kii mooy rakkam mooy xaritam bu musaan di bëri moom nekk ci karam moom it waaye am la réeroowuñ da gën a jàpp rek xam ni àdduna moom moo doxee noonu gis nga lii mm-hmm. gis nga lii Balla Gaye 2 jamono yi saal bii la moo tax tukkiwul demul fenn te nu mu bëgg a mel lay mel kon moom <laughs> moom na gën a góorgóorlu xam ne yax bi la ko yàlla may moom bu entraîné rek nekk ci li mu war a nekk rek yaakaar naa lépp lu mu bëgg a nekk rek yàlla ko may ndax nangu na mi ngi nii bambaa ngi Sadio waaw moom moo daan nekk ci kanam tuus bi di def lu ko neex ñoom nag di leen ñaanal jàmm daal waaye yeneen ak yeneen aw daal yow daal amal jàmm rek <laughs> amal jàmm rek kontaan nañ bu baax a baax a